Salut, c'est Nikita, Suivez-moi sur Vibe TV. Nikita C'est tout comme je peux dire que je suis d'origine Saint-Lémy, tout décembre Bang. Nikita, c'est ma mère qui m'a appelé Nikita. Au début, j'étais fan de Buzz Lab, de Cannabis, de me suivre Ikeum ay mixtape am je raté rien si li mi def par la suite dama dem ba dama habitué si rap bi avec mes amis d'enfance dañ si continuer ni si fort, on a créé ben groupe mais xam ça s'appelait Laçon Antique j'étais la seule meuf euh, de la team par la suite ni dem di dem di dem di dem ba rap bi mooy loolu après ba ma bac si la ñëw Dakar après si la xam ben groupe tout de Faux Rap je les ai rejoints après ensuite j'ai signé à Wabi. waaw avant ça dafa amoon benn euh, challenge bu ma njëkkoon def euh, doomaraam benn son boo xam ne tout ça moo ko woyoon dama ko def après dafa siwoon si internet bi ñëpp kii ko sama yaay mu xamoon na ne damay rap mais gëmu ko woon noonu bu baax pour moom damay def nii rek passe temps rek après par la suite si la gis affaire bi si internet yi si la ñëw laaj ma ndax dangay rap ma ne ko ah, effectivement mais tout côté familial, mais avec ma mère un problème elle a accepté comme nous numéro. Bah Nikita projet de avant may groupe sur Rap La def ak thème parce que c'est tout comme un ñun saint nous sommes dama les genre c'est tout quoi. ah peut-être que ego trip yi moo génn mais am na son yoo xam ne thème la mi ngi ci yoon dina génn am naa sama benn son boo xam ne thème la dina génn bientôt li may soogee ñëw moo tax may ego trip bu ko defee ñi nga xam kan mooy Nikita loolu la rek. Euh, YBE euh, lu tax ma décidé signer la parce que je me suis dit que man sama rêve li may dund mi ngi si YBE parce que nekk na label boo xam ne ils sont osés de un rêve lo xamné lepp lépp man xalat rek je le vois à YBI e. parce que amna ay temps yo xamné avant may dugg ci label bi gisoon naa clip tout ça mu def ko après clip bi daf ma neex tellement parce que dañoo def mélange genre rap ak mbalax mu nekk tram ñu def ko affaire bi neex ba pare je voyais des jeunes filles yo xamné sol ay yëre olof di si di alors que je me suis dit que man li moy sama rêve donc label bi neex na ma trop pour ma dugg ci ban moy lolu quoi <laughs> événement maa ngi qui préparait comme tout artiste quoi pour wane sama bopp rek dire à tout le monde que man la Nikita je suis là à YBI e et j'ai posé mes valises euh, moi loolu na ñëpp bàyyi. bah je dis à tout le monde euh, maa nu leen nuyu yéen ñëpp di leen gërëm que nan ma xaar saint le 6 du yomb ñu waaye ñëpp que YBI e est là on est là pour s'imposer par force te day neex amul bah, je remercie ma mère. Euh, ak ñëpp ñëpp ñëpp ñu may seetaan ce qui me connaît ce qui ne me connaît pas maa ngi leen ñoom ñoom. 102.3 le nouveau son.